أعوذ بالله سميع عليم من شر الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou Mbacké barkeb sëriñ saaliw lin xaadatil ujuru wal bi tayyi wal jës bi wa inni saalixu barkeb sëriñ saaliw barkeb sëriñ saaliw barkeb sëriñ saaliw wahab li al alma alsaxiixa wal amal alsaalixa allazi al amal barkeb boroom xel koom ginnaaw ba nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangu-sang yi seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal bu baax alxalifatul amma cheikh muhammadul muntaqa yàlla na yàlla bàyyi ko fi lool te wéral ko ku ne amin yàlla na yàlla faj say ajo ku jug taxaw ca kaw ni amin yàlla boo paralysé maa ngi ñaan ku jug taxaw ca kaw rekk ni amin yàlla boo paralysé ci dooley sëñ Touba. waaw sëñ axmadu xam nga dàmmel ne timis gaa ngi jege léegi sëñ baa ngi ñëw nee na nanu yeesalaat jataay bi sëñ baa ngi ñëw nanu yeesal jataay bi sëñ Ahmadou xam naa wax ji du gudd ndax daanaka li fi matoon a wax lépp wax nañ ko sëñ baay Makhtar mii ci suba danga maa jox ma jox sama jëwrin jee Baye Cheikh Fall nga dellu delloo ma kàddu gi ma jox ko sama jëwrin ji baay Makhtar nga xam ni moo doon jàng ci suba nga xam ni bi ma wàccee ci réew mi Rome moom Baye Makhtar mii moo ma njëkk a fekk ci ab jataay ca Rome booba xaw ma keroog la may door a gis ni ma xaw ma lu mën a xew waaye yow nitu xasida nga barke Cheikh Saliou ma yaakaar ma jàpp ko googu sama diggante ak moom ba nëga kon nag yàlla na yàlla mottali mook taalibeb sëñ Fallou bi nga xam ni waaw ñun ñëpp rek barke boroom Touba di siyaar bu baax sëñ Cheikh Badara mbay mii nga xam ni jëwrin saa bu teewaay bu mel nii amee rek moo may woo téléphone ni ma danoo sàkku teewaay bi keroog bi may woo dama ne ko sama oto day daa paan mu ne ma danaa la yebalal ku la jël si sëñ Ibrahima Thiam mii si Ibrahima Sarr waaye nee na jaay na sant wi ci suba jël si na ma daanaka def na ca kër ga met a may door pare waaye loolu lépp rek euh, danuy xam ni sëriñ Touba rekk la du lenn lu dul sëriñ bi jataay bi nag li nu fi dajale lenn rek la muy jataayu tubaa ca kanam waaye di sant bu baax mboolem waa rajo Emilia gi ak Parma. ak Mantova ak li ko wër ndax man zone bi sama zone la di siyaara bu baax waa daayira sëñ Touba bu Reggio Emilia nga xam ni programme yi ñuy def yëpp dañ koy ànd ak sunu jëmm ji ngir sëriñ bi soxna Kouma Ndiaye si mii ak sëñ daam maa ngi leen di beraluk cant ndax bis boobu bii ma doon defal sëriñ saaliw moom mii dama ko maree ne bis mu départ Reggio fekk ma Milan ànd ak mbooloo mu bari ngir jëmmi Seex Saliou di siyaare bu baax waa Mantova yi sëñ Ibrahima Fall mais li tax mu jaayante dugg ci liggéey bi du hasard boo ko fekkee baa xam ne jëfkatu Serigne tubaa la mook ñoom soxna Faati Gueye Ndoye ak ñëpp soxna Abi Jànk ak Baye Seye rek waa Teret Sano bu ma limee juum ndax ñi fi teew ñëpp samay nit lañu waaye sëñ Ahmadou xam nga lii nuy def tubaa ca kanam ji ki nu koy defal mooy sëriñ Touba du dëgg. te Serigne lépp lu mu am Baye Pape Thiam nu ngi lay siyaar mu ngi lay siyaare bu baax lépp lu sëriñ bi am rek mi ngi ko amee ci diggante yàlla ak yonent bi xam nga koo xam ne biñ ni ko dangay ngay jihaat dani damay jihaat waaye li may jihaat mooy ci yoonu yàlla ak xam-xam inni ujahidu bil ulumi wa bi wax ci xam-xam ak ragal yàlla maam Cheikh Ibrahima Fall moom départ jëm ci Serigne Touba bi mu déparee ba jëm ci sëriñ bi nee na tànk bu ma jéggi rek kënu tàkk ci aras Ahmadou Fall Seer Ndiaye biram jëggu nga ngaay def leen ni nu màggal maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba dem ci liggéeyam bi ba ñibbisi bi muy dem bàyyi fi sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara bi mu dellusee am Serigne Saliou Mbacke ak Serigne Abdoulahat ak Cheikh Mouhamadul Fadal waxtu wi gudd laay bañ. waaye li ma bëgg mooy ñun ñii fi ne li ma naroon lépp sax léegi bàyyi naa ko lii laay far def dama bëgg kër sëñ tubaa gi woon ci njaareem seexi sëriñ tubaa yi ñoo fa newoon di fa samp ay xer sëñ tubaa daa masa woolu sëñ Aliou Touré sëñ baa ngi ñëw nañ defaraat toogaay bi sëñ Abdou Lahad mi ngi ñëw nanu defaraat toogaay bi dugg si ne ci jataay bi alhamdulilah ndax bëggoon naa kàddu yi may wax sëriñ bi fekke kon ma ni ku doon wax rek na nga teewlu woolu sëñ Aliou ture mu ne ko Aliou sama borom nee na daa bëgg nga yeesal kër gi kërug njaareem gii tey sëñ Aliou dem dugg ci àll bi yor ñaari otoom defar kër gi ba defar ko bant yoo xam ne boo tollee ca bitti doo seen li ne ci biir kër gi sëñ Tuubaa bi muy ñëw sëñ Aliou ture dani na ngeen fexe ba seen bët bii bu mu tege ci sëriñ tubaa nga xam ni bi sëriñ bi gaaree oto bi rek bay wàcc kenn ku ne dangaa jël sa jëbbi këpp ko ci suuf sëñ tubaa di dox di wër xer yi ba yàgg mu ne ko Aliou Touré moo tax sëriñ tubaa amul moroom barke sëriñ Saliou Mbacke ni ko ndax dégg nga xeri sàkket yi li ñuy wax xer yi mu ne ko déedéet Mbacke mu ne ko xer bu ne mi ngi naan ma mbàkke santal diw doomi diw ak diw moo ma jëlee barab sàngam ba indi ma ci sa kër gi koo xam ne xeru sàkket da ngay romb rek mu ni la mën a diw doomi diw ak diw ma fi indi ñaanalal ma ko moo tax njabootu sëriñ Touba googu amunu moroom léegi ku nekk xam na ni Mohamed kay réglé na ku nekk xam na ni Serigne Mandoumbe lu mu am ci sëriñ Touba la ko amee. léegi damaa bëgg carte sëriñ Mandoumbe Xaban nu daggal sëriñ Mandoumbe Xaban aw carte Ahmadou ñëw ñëwal ma nii yow yow xaaral maa ngi ñëw xaaral xaaral waaw kay carte sëriñ Mandoumbe Xaban laa bëgg carte sëriñ Mandoumbe ñëw na ma ni déglu leen ma rek ci sëñ Mandoumbe ñaari carte sëñ Mandoumbe ñëw na. sëñ Mandoumbe léegi. sëñ Mandoumbe moomu nag. laa la bëgg a leeral tuuti. ak sëñ Aliou Touré. sëñ Aliou moo ne woon. Mbàkke mag ñu doyal nañu joxal gone yi. kon gone yi bu ñu amee ñun gone yi. sëñ Aliou tax mm. nga dem ci kan. sëñ Mandoumbe moo ne woon te jimaay njaareem ba ñuy wax ñi naan ñee sant Mbàkke nañ bindu fële mu ne man faam laa sant bind leen ma fii sëñ Mandoumbe ba sëñ moo ba sëriñ Touba teewee nekkee ak ba mu ko wanee ginnaaw ba sëñ moo Modou Moustapha nekkee xàmmewu ko école français bi ñuy wax fii ci Touba moo ko tabaxaloon Seexul Xadim Baxdaat kër sëñ du Khadir ba Baxdaat ay toolam la woon moo dàqoon a bay ci senegal yàlla na yàlla yokk leeram te taasu ci barkeem xam nga Baye Moussa Ka dani ko sëriñ Mandumbe saa nijaay njool astawaalu numbe laay waykat ba jooyle leen ma waay baykat bu mag ba làqu na dal ni bay na pataar bay na mbayaar bay mbàkke baari ay koo xam ne day bay bay bari ci ak joor maami sëriñ Abdou Lahad mii toog sëñ ma numbe mat na léegi dama bëgg sëñ Modou Moustapha waaye ñaari carte sëñ Modou Moustapha am sëriñ Touba bëgg mani ana ñaari carte laa bëgg ci Serigne Modou Moustapha bàyyi sëriñ Mbacke soxna maami Serigne Mbacke soxna loo waaw mat na Mbacke waaw kay jot li ma wu wuyul sëñ bi waaw léegi xam nga sëñ Modou Moustapha mat na waa léegi waa léegi ana soppee sëñ Fallou ku sopp sëñ Fallou defal nii sa loxo. waaye jug leen ñu màggal sëñ Fallou waay waa Ahmadou yow doo fay autoroute bi ah. waaye sëñ Fallou waay waaw waaw mais sëñ Fallou mii tamit ah, baax na waaw kay waaw sëñ Ibrahima Thiam sax ñëw na sëñ Ibrahima Fall borom Mantowa Baye Cheikh